seytaane rajiim bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ku jullit bu nekk bon ñoo leen siyaar waa Darou Salam ñu ñëw yéen seen naafile yi ku jullite bu nekk fukkeel ba ak ñeneent juróom ñetti rakka rakka bu ne Fatiha benn yoon Isaa Jaa Nasrullahi juróom yaari yoon ku julli guddeeg fukkeel ba ak ñeent juróom-ñetti raka raka bu ne faatee benn yoon ak isaaja ak nasrulaay juróom-ñaari yoon daanaam yoon pour saraxi junniy diinaar ku goreel junniy jaam yu gëm yàlla jox lekk junniy yu xiif yàlla dana nangu ay julleem ak ay kooram dana ko musal ci ay adduna ak alaxira ku yomal xiyaamee dana ànd ak woy ragal yàlla ya ñu tiit duñu ragal yàlla dana ko ràmmuloo cey bokkam juróom-ñaar fukk yu waroon dem sawara loolu mooy naafilaak fukkeel ba ak ñeneent kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh